ñu tal ko te mu ànd ak wér ak kàttan di leen jox tamit ziyaar ak ak nuyoo ak ñaanuk sëriñ bi di jottali ngërëm ak cant ci mbokku taalibe yépp ci xew-xewu diine bi nga xam ne ñun ñépp ko àndandoo ci ndigalul suñu boroom ba weesu ko di leen ci jottali cantuk sëriñ bi mu am nag ak yóbbante boo xam ni ci moom la jóge mu jëm ci mbokk jullit yépp ak mbokku taalibe yi mu ni ma woon bu ñu ñëwee bu ñu laataa julli ak jombul sax dinañ def yeneen i communiqué ci rajo yi ngir mu gën a yaatu mu jottali ko tamit Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo yor kàddoom léegi la ma ko gaaralaat muy tolluwaayu jamono ni nga xam ni moom la àddina bi toll ak yëngu-yëngu yi ci xew yépp ak réew mi nga xam ni mooy réewum senegal te ñu bokk ko te mu ni muy réew moo xam ni mi réewu li ci ëpp réewum baykat la te nawet bi xaw a yéex ci gox yu bare bare bari mu ni ma nag nañu wax mbokk jullit yépp rawatina mbokk taalibe jox ndigal ñu ci suñu borom tuubal ko tubal gu wér gu yaatu balon tey ak ginnaaw loolu ñaan yàlla mi nga xam ni borom di borom ndimbal mu dimbali ñu ca kàttanam ak ndimbalam woyofal àddina bi ci fànn yu bari rawete na nawet bi nga xam ni dafa yéex ci gox yu bari mu ni ma woon dimanche ji di ñëw dibéer buñ ci demee ba ginnaaw tisbaar ginnaaw ginnaaw fii ci masalikul jinaan ak bépp box boo xam ni dañ koy tudde sëriñ bi ak bépp daara bu ne ci réew mi ak bu nekk ci gox yépp ñuy di tamit zikar di tudd turu yàlla yi ci ku ne nam ko di jangga xasida ku nekkit na mu ko mane bu koy def ba ñu dellu ba ca ëllëg sa di ko def ba dibeer ji dellu bu dibeer ji dellusee ca altine ja nee na nañ ko yendoo buñ ko yendoo lu waay man ci sàkk sarax ak xéewal mu def ko fa mu féete rawatina barab yi nga xam ne yii mooy barab sëriñ bi ak daara yi bu ñu ko xëyee ci njàngum alxuraan ak xasida ak zikkër bu ñu amee lu ñu am ci xéewal dimbali ñi nga xam ni dañ ko yittewoo mooy noo néew ju doole yi bu ñu ko yendoo ba takkusaan nee na ñu ñaan nee na ñaan gi sax ci moom lay jóge moo koy tëjal boppam moo ma ko wax bii ki waxtu ci 9 la ma wowal boppam tey léegi bi may ñëw la ma cheikh mohamadul bachir wax ni loolu naa leen ko jottali jottali ko mboolem jullit yépp rawatina mboolee taalibi sëñ Tuubaa yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp day ñaan lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yàlla mi nga xam ne mooy borom ndimbal ak borom kàttan yàlla na dimbali na bi yàgg fi te wér yàgg ñoo jiite ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne bii moo ca ba ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh